auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmaan irahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin seydina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashaabihi wa sallama tasliman rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul oqdata min lisaani yafqahu qawli yéen mbokk yi ñu ngi leen di nuyu da leen ziara ci dalal bii nga xamante ni dalal ngeen ñu ko ñu ngi leen di ziara bu baax a baax. macha allah. Euh, waaw waaw Cheikh Omar Thiam borom ijaaba loolu sama maam moomu ko tuddee woon ndax ba ma nekkee moom mu doon faj di nit ñi di ko ñëwal mu leen di fajal di leen faj seen xaaju di faju mu leen di ñaanal seen xaaju di faju mu dem ba nga xamante ni su tukkiyaan man la fay bàyyi ci kër gi léegi ku ñëwaan su ñëwee xaaju bu mu mëntu wax su ñëwee dama ko si ñaanal yàlla su demee dana gis xaaju jooy noonu dafay faju si saase léegi loolu moo waral ñu tuddee ma Cheikh Omar Thiam borom ijaaba waaw sama maam moo ma ko tuddee ijaaba mooy nangu nangu comme nga ñaanal nit ki li nga ñaanal mu gis ko waaw loolu mooy ijaaba macha allah waaw loolu mooy ijaaba mm. waaw. Euh, gars yi euh, dëgg la loolu dëgg la ndax Saalum laa nekkoon fan yëpp maa ngi woon Saalum waaye yitteel jaam yi ñoo ma yëkkati ba ma ñëw fii sama ñëw fii dakaar waaw ngir jëriñ jaam yi ndax xam naa fi ay taalibe yoo xamante ni dañ may soxla toujours te mënuñ di ñëw bët bu set di ma fekk si fële. léegi moo tax ma ñëw seet si leen ngir dafa ñoom léeg ay ñaan yoo xamante ni macha allah dañ ci gis seen bopp waaw. yow ci ñaan ci lan lay dépend da ngay da ci kurus ngay ñaanee wala bon am na ñeneen ñi ñaanee ci alxuraan ñii di seet ñii pettaaw ñii di sixaar foo man damay listixaar ndax listixaar yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko digle. man damay ramlu damay seet si ramlu ramlu mooy seet ci suuf mm-hmm. waaw ay tomb mm-hmm. waaw te damay seet ci kurus mm-hmm. seetal nit ki ci kurus fa tabaarakallaahu ñett yooyu yëpp dañ ci seet waaw te lu ma ci seet fu ma la seetalee danaa la gis ba wax la li nga xamante ni ñëwagul sax si yow waaw macha allah lépp loo xamante ni gis naa ko lu paase ak lu ñëwagul lépp loo xamante ni seet bi wan na ma ko danaa la ko wax incha allah. Euh, waaw man damay yëngatu ci jinne damay doon liggéey ak jinne sama maam ndax xam na jinne ju doon wax karantaba jinne jooy noonu saa yu sama maam damaan di féexlu ci roon daqaar ga foofu la gaay jinne ji di génnee toog moom di waxtaan. man saa yu daan waxtaan ak junni ji man dama fa daan nekk waaw ba sama maam dëndoo àdduna ma continuer nekk ak junni ji ñuy wax karantaba lépp loo xamante ni maa ngi ciy dugg dama ciy yëgloo moom te lu xam-xam li si bari moom moo ko jox waaw ku ku rab topp ku jinne topp yëpp mm-hmm. dama koy faj dama koy saafara waaw ni mu gën a gaawee waaw incha laa ci àndal wax dëgg yàlla ba sa jàngoro bi saafarawu waaw alors ubbeeku gaa yu bëri yàlla may nañu si ay secret yu bari ci yoo xamante ni képp koo xamante ni bëgg nañ lay taal dañ la taal insha allah bu neexee yàlla te lépp loo xamante ni ñu ngi koy def nit ki pour mu ubbeeku ci alquran lañ koy def ak ci sunguf ak ci reen ak ci xob ñun yooyu dañ ciy liggéey pour ubbi ci nit waaw te ubbi bi waaw am na délai 15 laa la may li nga soxla lépp a nekk njiit a aju ca kaw wala nga lépp lépp loo bëgg nga raw say maas nga nekk si place bëgg fay kawe lépp incha allah buñ si jëflantee yow si sa wàllu ubbeeku moom. jeex na foofu lay xam waaw da nga ubbeeku ba faw hmm. waaw kenn dootu la mënati fay incha allah waaw ñun képp koo xamante ni ubbi nañ la hmm. yàlla danañ dañ la defal mustuwaay hmm. mustuwaay ndax kaaraange dafa baax waaw dañ la defal mus kaaraange boo xamante ni incha allah képp ku jëm ci yow lu bon wala mu yéene lu bon danga gis benn mu dee deegu gaaw wala mu feebar feebaru bon boo xamante ni yow da ko teg sa bët waaw incha allah waaw lépp lépp ci xeetu kaaraange la bu ñu xasee ba kaaraange moom jeex na cet mënatul si yow dara fu la neex demal mm-hmm. benn nit dañ ko liggéeyee ci pakk bu nekk ci diggu yoon mm-hmm. pakk diggu yoon ku nekk xam na ko mm-hmm. wala garab goo xamante ni nit yëg na fa daanu yooyu la ñuy xam ay aay yu ñu bind ci alquran boolantekaa moom daf ko saafara jox la nga sangoo ko saafara sooy ker boo ko sangoowee képp ku jëm ci yow wala mu yeneen lu bon da gis mu dee deegu gaaw wala mu feer feeru métti bañ ku ko gis yërëm ko waaw incha allah am na dale waaw man ay borom 15 jours yi 15 jours du ma fa xàpp ak li nga soxla lépp mu faju xaajo bi faju incha allah waaw bayre ñun dañ ciy yëngatu ndax nit ñu bari dañuy ñëwal di ñu wax ci wàll bayra bayra ñun dañ naan ko kafantoo temps yu nekkee ci daara ji benn nit ñëw rek jigéen ji wax nam ma nam naa la jigéen ji bañ waaye ker buñ ko bindalaan ci alquran xam ay aay yuñ jël bindal ko ko ci ci alquran defal ko saafara xam sunguf bu ko booleeg keraw koog moom pare na bayra da ngay topp ba faw waaw moo xam waaw xataa ba si sax bi ngeen buggee bu ngeen ko defee incha allah fi ngeen jëm fépp fi ngeen nekk nit ñi da di soxla da leen woo waaw wax dëgg yàlla yàlla may nañu si secret bu fooro foor macha ñu koy sant yàlla bu baax waaw ñu euh, noob fa tabaarakallaahu yàlla may nañu si secret yu bëri yoo xamante ni côté bu nekk dañ ko ci noobee dañ boolante diggante jëkkër ak jabar yoo xamante ni dañaa juumoo dañ boolante patron ak ay client am bëgguñu juboo nekk benn dañ boolante kër goo xamante ni dañaa xam ay problème ñu bëgg ñu boole leen dañ leen boolante ci wàllu nopp jox leen benn ñu bind saafara jox leen ñu naan ko wala lu ñuy suul ci biir kër ga wala lu ñuy raayoo waaw loolu saa yu ñu ko defee incha allah fu mu mënti jaar dañuy jubóo ba faw waaw déedéet man du may def lu bon mm-hmm. waaw ndax nga topp nit ngir toroxal ko mm-hmm. wala nga topp nit ngir soxoree ko man du may def du ma noobal kooku waaw

combat Modou Lo ak Eumeu Sène wan nañu si kuy daan bu yàgg te combat bi ker bu jege see incha allah danaa leen wax kuy daan ak nu muy daanee. ci ñaar am na ñoom ñaar ñëpp xam nañ doole mm. waaye incha allah yàlla xamal nañu mm. kan moo war a daan ci combat boobu noonu. te incha allah te bu ñëwee danaa leen wax kan mooy daan diggante Modou ak Eumeu Sène gis naa kuy daan quarante sama junne ji man dee na ma lool wax na ma kuy daan wan na ma combat bi te mën naa leen di wax nu muy daane nu mbër mi di daane morom ki incha allah waaw ngi fi yaa ngi fii ci Dakar maa ngi fii Sud euh, maa ngi Sud Foire waaw Mhm. waaw waaw dinaa fi yàgg mhm. ndax dama fi ñëw mission mhm. pour taalibe yi nga xamante ni soxla fii jinne ji dama ànd ak moom moom fu ma jëm daf may topp waaw fu ma jëm daf may topp waaw non non du ma sonal du sonal kenn wax dëgg yàlla moom dafa yaru waaw dafa yaru da ndax daf ma tarbiya waaw wax dëgg yàlla du def kenn dara wax dëgg yàlla fu ma nekk daal mu ngi sama pegg